marhaban Fatou Astou Soxna ci hôpital Ahmadou Sakhir bay ci Louga ginnaaw bu mu doon jéem a mucc mu ngi woy bëtee dina dang ci xëtu yéenekaay yi bés bi la jour nañu directeur hôpital ba daal na jéem a seen der ci jamono jooju nag njabootu ko ndem si yàlla si di Astou Soxna ñoom daal nañu porte ji plainte démb ñu def mbir bu ni mel déposé seen boobule plainte ci kaw tabal procureur ba suñu naatango yi nañu abu émotion dëgg moo am ci génnu àdduna astu soxna mi nga xamante ne leen na waralu ko lu dul ab càggante di maanaam négligence bi ñuy jiñ fajkat wi ne ci boobule l'hôpital loolee waral directeur ba génn yëkkati ay kàddu docteur Amadou Guèye Diouf di xamle ni amatu fenn fu ñu wax soxna si ci boobu boobule l'hôpital ne dañ koy césarienne ni mu gën a gaawee waaye du teene moom directeur ba daal dinay nangu ne bu fekkente ne am na ay njumte ñu yëkkati ay daan gàll ko ci loosu ñi nga xamante ñoo ko defa libération di fàttali ne ci weeru mars ci atum 2019 moom soxna Sidi astu Astou soxna amee won na itam geneen jafe-jafe ci boobule l'hôpital ginnaaw bu muy mucc ndax dafa mujj sax jaare daal di ñàkk ab taawam jigéen bi nga xamante ne bu mu koy wasin ab prématuré la woona ab doxu ñaxtu des koy amal foofule ci Louga bu ñu sukkandikoo ci libération ci ajuma bu ñuy dëgmal Walf Fadjri quotidien sëkk waxtaan ak waay juru jigéen dem si yàlla si di astu soxna Maymuna baax lay wuyoo ci jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi ni ki démb dellu suwaat na ci anam yu bile doomam ñàkkee bakkanam te mu daal di gàll responsabilité boobee lépp ci kaw sage femme yi mu jàpp ne defuñu lu dul sacrifié bi la doomam bu jigéena l'observateur def gëstu gu yaaj jëmale ko ci doxalinu bërëbu fajukaay fii ci Sénégal nañu ñàkkum xarañte di maanaam incompétence plateau médical bi Maguette Beye Xobidas bokk na ci xar kanamu suñu bërëbu fajukaay yi fii ci Sénégal ci joojule jamono yéenekaay ñu ngi dellu siwaat ci projet de loi mi ñu daal di voté ci assemblée nationale jëmale ko ci nu ñuy seddale ak nu ñuy encadré alal mi tukkee ci wàllum exploitation hydrocarbures yi jëwriñ bu ñuy dënk wàllum finance ak wàllum budget Abdoulaye Daouda Diallo moo ko doon défendre ci ab séance plénière bi ñu doon amal ci assemblée nationale loole waral yéenekaay la Soleil nañu ab loi daat nay verrouillé séddalem alal gi war a tukkee ci exploitation hydrocarbures yi fii ci Sénégal recette yi nag fas nañ koo séddale ci diggante budget général lu ñuy duppee fonds de stabilisation ak fonds intergénérationnel yéer leen ko ci biir yéenekaayu enquête ci wàllum politique yéenekaay la Quotidien daal di xëyee ni ki tey jilee ab jàngat gu xóot lool jëmale ko ci doxalinu président Macky Sall ci opération bi mu tuddee jokkook Macky mi nga xamante ne moom njiitu réew mi moo ko lancé te mu daal di ci jublu weccoo xalaat ci digganteem ak askan wi jàngat bi ci yéen kaa Sud Quotidien def nag moo di moom président Macky Sall lenn rek la ci jublu moo di dragué ndawi réew mi Walf Fadjri Quotidien jàppee mbir bu nu mel ab manœuvre politique te xam le ni président Macky Sall daal lenn rek la bëgg moo di abu opération remontada ndaxte bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi daa dinay dogu ngir am ndam ci élection législative yi ñuy dëgmal fanweeri fan ak benn ci weerum sulet loolu nag moo waral ba fu mu toll ni xeebut lenn moo xam ba fexe ba jubawaat ak ak ñi nga xamante ne seen diggante daa ñagasoon ba ci dugg ci biir opposition bi ngir mën faa jëlee ay kàngam lépp nag tersi ci ay rôle yu muy distribuer jaa ngeen jëf